ba tey loolu noonu la mel ne ko giir ga yanu ànd ak waa ji nga xam ne moo tooñ ndax kañ tooñ lu néew néew mu am alal waaye ñu tooñ ko ba noppi te fayuñu ko kenn fayulu ko itam boole ci loolu daal ëpp naa def wala taqilu du diyaal alxaqilitu giir ga man ka nga xam ne xatal rey na nafsahu ba kanam xamdan ci ak tey aw xataan wala ci njuumte ku rey boppam moo xam daa xaru moo xam teyu ko ñoo ci yemoo bakkanam neen na dañuy jàpp ne bakkanam neen na waaye duñu wax ne nañ dajale diye jox ay mbokkam yi gën a jege ñu doon ko déedéet dañuy jàpp ne mu dagam moo rey boppam rek jeex na jeex na watu xaaqilu dana yemoon teg ci diye almaratu jigéen arrajula góor ilaa sulusi diye ci rajuli ba ci sulusub diye góor fa isa balaxat xaa ndem jot na ko rajaxat mu dellu ilaa xaqlihaa jëm ci diyaam ja yenn jigéen ak góor ñoo yemoo ci koo ci tooñ la nga ko war a jox muy góor bu jigéen ñoo war a yemoo ba keram yi mat sulusub diye góor su ko matee nag jigéen door a am xaaju góor ci misaal da nga ne woon benn baaraam bu ñu ko daggee fukki gëléem moo ci wax kon jàppal ne benn baaraam ñu dagal ko góor ak ñu dagal ko jigéen ñoo yemoo dong ba tey xam nga bu dee ñaari baaraam ñaar fukki gëléem moo ciy wax bu dee ñetti baaraam fanweeri gëléem moo ciy wax loolu lépp nag kon nga dagal ko góor ak nga dagal ko jigéen ñoo yemoo dong waaye nag boo daggalee jigéen ñeenti baaraam nag foofu la ñuy teqalikoo ndax bu doon góor day mat ñeent fukki gëléem xam nga ñeent fukk ëpp na sax sulu sub diya kon nag jigéen boo ko daggaloon ñeenti baaraam danga koy fay ñaar fukki gëléem rek te boo daggalee góor ñeenti baaraam nag fay ko ñeent fukki gëléem wan na fa kuréel ba yaqtuloona mbir moom danañu rey rajulan waay fa innahum naka ñoom yuqtaloona def na leen rey bi ca reyu waa joojee nee na am mbooloo buñ reyee nit rey kompaloo waaw su boobaa ñoom ñëpp la ñuy rey su fekkee du woon kompaloo wax nañ ko ci gannaaw nit ki ñu sixitoo ko rek ca marché ba ku nekk dóor waaye fekkut woon ñu kompaloo ko dañ ne woon ay mbokkam dañuy jàpp kenn rek teg ko tuuma ja ñu waat ñu fayul leen ca kenn kooka ña ci des nag kenn ku ne dóor la téeméer yorat tëj la at waaye bii nag moom buñ ko kompaloo ñoom ñëpp la ñuy rey was sakraan aji màndi in xatala ndem rey na xutti la reyef ko nee na koo xam dafa naan luy màndal tey lu araam boole ci muy sàngara loolu tax ko rey nit nag dañuy fay ci moom rek rey ko su fekkoon nag dafa naan garab rek far loolu màndal ko tax mu rey nit dañuy jàpp ne kon reyub teyeful rek la wa in xatala ndem rey na majnun ab dof rajulan waay fa diyatu kon diye ja xalaa xaqilatihi war na giiram nga ab dof daal bu reyee nit kenn du ko jàppee lam def dañuy fay diye rek te fayu ba mbokk ñoo war a fay diye ja waxam du sabi yi tey gone kal xata yi mi ngi mel ne tayeeful gone bu tayee ba noppi rey mbaa bu tey ba noppi jam moo ñàkk tey ñooye moo ndax mu kàllaf rek la ñuy jàppe lam def waaye gone moom diis ko jàppe lam def mooy gone kenn du fayu ci moom kon gone ga lam def gone ga la mu def su matee sulu sub diye mbaa mopp ko fayu ba mbokk ñoo ko war a fay su fekkee loola mëtul nag sulu sub diye gone gi ci boppam su amee alal dañ ko génne ci alalam fay ko su fekkee amul alal na ñu topp ko ko rek waaye ndegam manqué na sulu sub diye moom moom rek moo ko war a fay wa tuqtalu def na rey almaratu jigéen bi rajuli ci rey góor wa rajulu daañu rey góor bi xaa ci rey jigéen wa yuqu tassu te def na fayantoo li baadihim ñeel lenn seen min baadin ci lenn fil jidaa ci jam-jam ya dafa wax ne kee doon góor kee doon jigéen moom du tee ñu fayu xante moo xam ca rey gala moo xam ca jam-jam ya la lay tee ñu fayu xante kay ñàkk nawloonte lay doon ne ki kee nekk julit kee nekk yéefar baa nekk gor kee nekk góor kee nekk jaam waaye kee doon góor kee doon jigéen rek moom du tee ñu fay waxante moo xam ca bakkan yàlla moo xam ci jam-jam yàlla wala yuqtalu deeful rey xorun gor bi xabdin ci sababu ray jaam wa yuqtalu te def na ray alxabdu jaam ba bi ci ci ray gor sax as gor moom ba rayoon ab jaam kenn du ko rey na mu reyee jaam ba ndax dañuy jàpp ne moom gor si moo ëpp daraja jaam jaam waxoon na ne mooy koo xam ne mas naa xeexal islam mbaa ay cosaana mas a xeexal islam ndax ku ñu woo ci islam mu bañ ne ko joxeel galak mu bañ ñu wëlbati ko xeexal moom ba jàpp ko jaam loolu mooy jaam dëgg-dëgg ku mel ne kooku nag dis ko yemaleeg gor mi nga xam ne mësta xeexal islam benn yoon kon gor bu reyee jaam day fay xaymay jaam ba su ko defee nag moom ci boppam ñu dóor ko téeméer yara tëj ko mat ndax képp koo xam ne rey nga bakkan rek te wari su fayu ci yow rek faaw ñu teg la loolu mooy dóor la téeméer yar tëj la mat su fekkoon nag jaam bi moo rey gor sa kon moom des na sañ a fayu ca jaam ba rey ko nam reyee gor sa ndax kam rey moo ko ëpp daraja ki ëpp daraja bu reyee ka ko féeti suuf moom deesu ko rey waaye nag ka féeti suuf bu reyee ka ko féete kaw moom ñu fayu ci moom rey ko wala yuqtalu deful rey muslimun ab julit bi kaafirin ci sababu rey ab yéefar wa yuqtalu te def na rey al kaafir yéefar ba bi hijray julit ba julit moo ëpp daraja ab yéefar kon nag bu fekkee julit bi moo rey yéefar bi kenn du fay ci moom di ko rey te bu fekkoo ne yéefar ba rey julit ba nag daañu rey yéefar ba kon takk-takk bi rek mooy ka ëpp daraja moom bu fekkee moo rey ka féete suuf dees fayu ci moom day fay diye ba noppi nag dóor ko téeméer yaram tëj ko amaat bu fekkee nag ko féete suuf moo rey ko ko féete kaw nag moom daañu fayu ci moom wala xisaasa déetug fayantoo bay na xorrin ci diggante gor wa xabdin ak jaam fii jurhin ci ab jam-jam bu fekkee nag jaam ak gor dañoo jamante yëmali wuñ ko rayante dagam jamante kese la moom duñu fayu xante benn yoon ci diggante jam-jam yi su fekkee ne léegi gor si ci boppam moo jam jaam ba dañuy seet lam ci war a fay rek mu fay ko su fekkee nag léegi jaam bi moo jam gor si nag ñu daal di jël léegi jaam ba jébbal ko gor sa mu fayu ca bu fekkee matalut ñu dolli ko ba matal rek waaye ñoom buñ jamantee moom jam-jam yi duñ ko fayu xante wala bayna muslimin du caageen diggante ab julit wa kaafirin akub yéefar ba tey julit ak yéefar buñ jamantee duñ ko yemaleeg ba ñu rayante woon ndegam jamante rek la moom duñu fayu xante su fekkee julit moo tooñ jam yéefar ba kon nañu seet la ca war mu fay ko bu dee lu ñu rëdd ci téere bi mu fay loola bu fekkee rëdd ñu koy téere bi attakat bi seet ko mu fay loola su fekkee ne yéefar bi ba tey moo jam julit ba moo gaañit ba tey noonu la nañ seet la nga xam ne moom la yéefar ba war a fay rek mu fay ko waaye ñoom duñu fay waxante noonu ci diggante jam-jam rek waaye nag nga delluwaat ci lee nga waxoon ne wala yuqtalu xorrun bi xabdin maanaam gor bu reyee jaam kenn du ko rey moom gor sax ndax moo ëpple daraja jaam ba waaye nag ci sartu gor sa nekk julit waaye su gor sa nekkee yéefar te jaam ba nekk ab julit kon julitum jaam ba moo ni ëppal solo gorub gorub yéefar ga su boobaa kon daañu rey yéefar ba la mu doon doon gor ndax rey ga mu rey jaam ba di ab julit wasaayiqu aji màng ja muy ka jiital wal qaayidu ak aji womat ja war raakibu ak aji war ja zaaminoona koy kàddu lañu limaa ñeel la nga xam ne wati at dëgg na ko at daabatu daaba ja ki jiital daaba ji ak ka ko womat ak ka ko war kenn ku ci ne ñooye moo àtte lu daaba ji dëgg ci tànkam rek ba loola gaañu mbaa loola yàqu rek bu dee ka doon jiital daaba ja moo war a fay bu dee ka ko womat moo war a fay bu dee ka ko waroon moo war a fay wamaa loo xam ne kaana nekk na min haa tukkee ca daaba ja min xayri fi alihim ci lul seen jëf aw waxiya wala nga xam ne moom waaxifatul aji taxaw la li xayri shay'in ñee lutul dara fon la loolu defeef na ko bihaa ci moom daaba ji fa taalika loolee hadarun neen lay doon nee na nag loo xam ne daaba ja daa jekki-jekki yàq ko mbaa mu gaañ ko waaye ka ko doon wommat mbaa ka ko war mbaa ka ko doon jiital defu ca dara niki daaba ji ca geen ba ci boppam la gaañe lam gaañ mbaa màtt ci gémmiñ nga la màtte lu mel noonu duñu wax ka ko yoroon ne ko yaay fay te jàpp ne loolu jëfi bahima la rek jëfi bahima neen lay doon mooy bahima xamul dara rek lam def kenn du ko toppe kenn duñ ko topp borom naa ko fayal dara ba tey bu fekkee dañ koo taxawal rek ne yeew ko fañ ko war a yeew moo xam day ca marché ba ñu seet fu ñu sañ a yeew rek ñu yeew ko fa mbaa day ci wetu jàkka ñu seet fuñ ko fa sañ a yeew yeew ko fa rek bu jekki-jekki màtti mbaa bu wéqi te xamuñ ci woon màtt mbaa wéq boobu yoon daal la yàlla dogal mu def ko rek am ku mu gaañ mbaa lu mu yàq su boobaa itam kenn du fayu borom dara dañuy xam ne jëfi baxima moom jëfi baxima jëfi baxima rek la kenn du fayu borom dara su fekkoon ne nag la tax bu wéq moom daaba ja mbaal tax mu màtt nag dañ ko koo def dañ koo ciwut ñaw ka mbaa ñu dóor ko yar nag tax mu daal di wéq mbaa mu màtt nag su waa kon ka ko ciwut mbaa mu dóor ko moo war a fay loola waaye ndika moom xamuñu ko woon ci ak màtt mbaa wéq daal yeew ko rek noonu mu jekki-jekki rek daal di màtt mbaa mu wéq ba gaañ mbaa mu yàq dara lu boobaa dañu xam ne bahima bahima la rek dees fayloo borom dara wamaa loo xam ne maata deena fii bi irin ci ab teen aw ma adin wala ak mbell min xayri fi'li ahadin ci lu jëfi kenn foofu moom xadarun neen la nee na kuñ doon gasloob teen mbaa ñu koy gasloo mbell teen ba jekki-jekki màbb ci kawam mbaa mbell mbaa kanum mbell ma jekki-jekki màbb ci kawam mu far ca faatu duñu wax ka ko doon liggéeyloo borom teen ba ko doon gasloo mbaa borom mbell mu ne ko yaay fay déedéet dañuy jàpp ne loolu moom dogal baa ñëw rek waaye kenn du ko ci fayloo dara watu najj mu def na àppal muy def na biddiwal addiyatu diye ja xalal xaqliti mu war giir ga fii salaal sinina ci yetti at bu fekkee ne diye ju mat la famille ba ko war a fay dañ leen di àppal ñetti at ñu fay ko ci kenn leen ko fayloo fa saasay saasa su ko defee ka nga xam ne moo rey nag day mel ne kenn ci ñoom rek fay na ñooñuy fayee wa sulusuha sulusub diya fii sanati nekk na ci at bu fekkee la war ca loola daa mat ceerub diya ni kii jam-jam ma moom mbaa jaayi fa kon te leen di wax ñoom fami ba de leen fexe leen ba fay ko ci at jaleb at ci ñu war a fay loolu wa nisfuha genn wàllu diya fii sanatay ni nekk na ci ñaari at su fekkee genn wàllu diya moo war kon dañuy wax famille ba ñu fay ko ci diirub ñaari at ni ki bu fekkee dagg ab loxo mbaa dagg ab tànk la luñ ci mën doon genn wàllu diye lañ ci war a fay kon nag famille ba ko war a fay ci leen di àbbal ñaari at ci ñu fay ko ca wa diyetu diye ja mawroo sët lu ñu doon la xalal faraay bi ci kenn masalay miraas ñu ne buñ joxee diye ja nag moo xam lu ñu tayoon la moo xam lu ñu tayutoon la ba joxe ci diye daal dañu seet ni ñuy miraas rek ñu miraase ko noona kenn ku ne looy am ci alal ju bokkut ak diye moom ngay am ci diye ja xam ne kon ni ñuy miraas rek la ñuy miraas yi diye amul ak soppiku da nga jàng ci kanam nag ci buntu miraas ni ñuy seddalee alal wa fii janinil xurrati nekk na ci mbéemurum gor su jigéen xurratun aw tànneef te xabdun ab jaam lay doon aw walidatun wala ab jébbeer tu xawamu bopp def na ko xayma te xam si na juróom fukk dinaaran ci ay dinaar aw sitti mi ati dirhamin wala juróom benni téeméeri dërëm nee na as góor su jigéen ku yàq ab ëmbam war nga caa fay jaam bu góor wala jaam bu jigéen boo xam ne buñ ko xaymaa dana war a mat ci xayma juróom fukki dinaar mbaa juróom benni téeméeri dërëm juróom fukki dinaar yi mu wax wala juróom benni téeméeri dërëm yi moo tolloog xushru diyetil ummi maanaam moo tolloog fukkeelub diyey yaay ja kon dañoo bëgg a wax ne ku yàq ëmbub gor xam ne da koo def loo xam ne tax na doom ji daal di génn te andaaliwul bakkan kon dañ koy tànnloo bu ko neexee fay tànneef wee mu wax muy jaam bu góor mbaa jaam bu jigéen boo xam ne xay maam war naa mat juróom fukki dinaar wala juróom benni téeméeri dërëm waaye bu ko neex itam nag mu jekki-jekki fay juróom fukki dinaar wala juróom benni téeméeri dërëm mu daal di nekk lu teew su fekkee nag ba mu defee gor su jigéen sa lam ko def ba doom ji juddu doom ci jooy na andiwaale bakkan door a faatu kooku nag kon mbokk yi jigéen ja buñ defee xasaamatu waa juróom fukki ngiñ kon ka def loola jéey bakkan bu mat lay fay waaye waaye du yem ci fay li nga waxoon léegi ba tuurasu moom it def na ko doon xalaa kitaabillahi ci kem téereb yàlla ba maanaam dañ koy doon rek ñi ngay jàng ci miraas ci alquran ak ci téere fiq yi dañ ciy àtte àtte miraas rek noonu lañuy doon ne loolu ñu jox jigéen ji ca bañ yàqee ambam dañ ko daan seetlee ci miraas rek ba te noonu lañ koy seetalee wala yaris du doon xaasilul xam di ajira yi tey min maalin ci alal wala diyetin du caageenu diya ku rey te tey ko nag moom kookee nga rey moom doo ko doon doo doon ci alal ja doo doon ci diye ja ngay joxe waxaatilul xata yi ajira yi teyeful nag yarisu dana doon minal maali ci alal ja duuna diye ci lu diye ja bu fekkee ne moom rey gam rey teyu ko nag du doon ci diye ja muy joxe mook ay mbokkam waaye nag alal ja nga xam ne bokkul ci diye ja moom dana ca doon wa fii janil amati nekk na ci mbéemurum jébéer min sayidi haatukee ci ab sangam maa la nga xam ne fii janilil xurrati nekk na ci mbéemurum gor su jigéen bu fekkee dafa yàq ëmbub jaam bu jigéen waaye nag ab sangam moo ko ëmbalan kon day mel ne ku yàqoon rek ëmbub gor li ñu waxoon léegi ci yàq ëmbub gor ba tey moom la ñuy waxaat fii ci yàq ëmbub jébéer ndegam ab sangam moo ko ëmbal wa in kaana dem nekk ne min xëyri ci tukki ci gurul moom fa fii kon nekk na ci moom washuru qiimatiha fukkeelu xaymaam ja su fekkee nag jaam bu jigéen bi lu mu ëmb bàyyi ko wutoon ci sangam li ki daa bàyyi ko ci jëkkër rek ci misaal waaye daal bàyyi ko wul ci ab sangam moom kon dañuy seet xayma yaayam ne nangam la seet nag fukkeelu xayma joojee li ki bu ñëwoon xayma yaayam ñaar fukki junni la dañuy seet nag lan mooy fukkeelu ñaar fukk te mooy ñaari junni su boobaa kon ñaari junni lañu war a fay ci ëmb bañ yàq te bàyyi ko wul ci ab sangam wa man qatala ku rey xabdan ab jaam fa alayhi war na ko qiimatu ko xaymaam julit ñi koy ci xam ne rey nga ab jaam moo xam yaa ko tey moo xam téyoo ko da ngay fay rek xayma ja ba noppi nag ñu war laa dóor téeméer yar tëj lam at boole ci lu may da koo rey rey yong rey yong dañoo waxoon ne moom ku ko rey ku mën doon rek daañu fay ci moom rey ko ndax buñ ko deful rek dund gi yàqu ci kaw suuf ndax buñ bàyyee rek ñu tëru nit ñi di leen rey ngir jël seen alal moom day daal di yàq dund gi ci kaw suuf moo tax ku ko rey nit rey gu mel noonu rek faaw ñu fayu ci moom wa tuqtalu def na rey aljamaatu mbooloo bil waahidi ci rey kenn fil xidaabati ci rugoo ga wal xiilati ak yong ga wa in wali ak doonte méngoo woon na alxatl rey ga baaduhum leen ci ñoom yena mbooloo buñ reyee kenn rey addu kalpe daañu wax ci addu kalpe ci kanam tuuti wala rey yongu mooy tëru ko rey ko ngir jël alalam bu ko mbooloo defee donte kenn donte kenn lañ rey du tee ñoom mbooloo mépp lañu rey donte sax mbooloo ma kenn ci rey du tee ñoom ñëpp lañu rey moo kompaloo gee nga weesu lañ yemale woon wa kafaaratul qatli kafaarak rey fil qata yi ci tëyeeful waajibatun aji war la ku rey nag te tëyu ko dañ koy wax ne ko defal kafaara defal alamaan alamaan gi nag mooy xitqu raqabatin goreelum jaam mu'minatin bi aji gëm dañ koy dañ koy njëkk a sant mooy jamono yi jaam amee su ma nee goreelum jaam na goreel jaam boo xam jullit la mu doon alamaanam mu nekk alamaanam bu ko tëg diyee ja ñuy joxe moom fa in lam yajid ndéem amut fasiyaamu shahrayni kon woor yaari weer mutataabihin yi aji toftaloo su fekkee jaam amut mbaa jaam am na waaye bu mënu koo am kon na woo ñaari weer yoo xam di susaloo wa yu'maru def na ko digal nag bi zalika ci loolee in xufiya ndéem jéggaleef na xam walis ko fin xam di ci reyu tey fa huwa moom xayru moo gën la ñeel ko ki nga xam ne moom daa rey te tey ko daañu ko digal mu def alamaan bi ci kaw sopp rek ndax xam dañoo war a fay ci moom moo tax da ngay jàpp ne sax moom mi ko tey ci moom lañ war a waral alamaan te waris ko waral ko ku teyut waaye dañoo wuutee ki teyut moom kenn du ko rey day ànd ak mbokkum rek fay diya moo tax kooku ñu waral ci moom alamaan ki rey te tey ko nag moom dañoo war a fayu ci moom loolu moo tax moom dañuy sopp ci moom rek def alamaan bi ñu wax waaye duñ ko waral ci moom suñ ko jëggalee daal moom bëgg nañ mu def alamaan boobu ndax rek rëyu bàkkaar ba mu def wàññi ko wa yuqtalu def na rey al zindiqu sindiq wala tuqbalu te deful nangu tawbatuhoo tuubam nga wa huwa moom allasi mooy ka nga xam ne yusiru dana nëbbu al kufa ak weddi ba yudhiru tam yu feeñal al islaam al islaam sindiq mooy koo xam ne da daa làqu di wax ne man jullit laa te fekk na moom yéefar la kooku nag bis bu demee ba feeñ nag dañ koy rey rek bu bëggee tuub itam kenn du ko nangu ba ka saalika naka noone asaahiru jabar ba ab jabar dañu koy rey te bu bëggee tuub di su ko nangu muy wala tuqbal tu defu nangu taw ba tuxoo tuubam nga waaye nag jabar bala ñu koo rey day fekk baat ya muy jabare doon ak kéefër waaye bu fekkee dafa wut ci alxuraan mbaa ci baati addis fexe ba jabar ci rek moom def na lu araam bu ci amee alal ba te alal ji nekk lu araam waaye lu tax nag ñu rey ko waaye nag bu fekkee baat ya muy jabare moom ba jumtukaay ya muy jabare moom ak kéefar la waaw kay su boobaa mooy tax ñu rey ko wa yuqtalu def na rey man képp koo xam ne irtadda murtad na ilaa an yatooba ndare bu dafa tuub koo xam daa nekkoon ci islaam gannaaw ba nag mu génn ca moo xam daa wax lu ko ci génne moo xam daa def lu ko ci génne dañ koy wax ne ko tuubal juróom ñetti fan bu fi tuubee baax na ñetti fan ñi matee te tuubal ñu rey ko ba tax mu naa wayu axaru def na ko yeexe li tawbati ngir tuub ga salaasan ñetti fan bu tuubee baax na bu tuubal rek ñu rey ko nga saalika naka noone almaratu jigéen bi mu ne wayuqtalu man rek man ji yóbbaale woon a góor gi jigéen waaye dafa baamuwaat nag ne jigéen tam bu murtatoon noonu lay mel dañ koy may dale ñetti fan ci bu tuub bu tuubal ñu rey ko wa man lam yar tadda koo xam ne murtatut wa aqarra te mu saxal bi salaati ci julli wa qaal te mu wax ne laa usalli du ma julli uxira kon yeexeef ko xataa yamdee ba wey waqtu salaatin waxtu julli waaxidat mu di wenn fa in lam yusalliha ndem julliwu ko rek qutila rayeef ko koo xam ne moom dafa nangu wute julli waaye nee na man gëm naa ne julli war na damaa tayal rek moo ma tey julli dañ koy bàyyi ba waxtu julli jot ñu taxawal ko di ko ko digal di ko ko digal ba nga xam ne waxtu mujj ba muy daroor yi dem na ba benn rakk sax bu sotti xawee su ko faa mën a julli su nangoo julli baax na bu nangoo wute julli ñu rey ko. dana wax ci kanam nag ka nga xam ne moom daa weddi waru julli waaye kii moom gëm na ne julli war na dafa tayal rek ba du ko def. wa ma nim tanaxa koo xam ne bañ na mi ne zakati ci asaka uxitat kon jàppeef ko min hu ci moom karxan ci ak forcé koo xam ne daa yor alal joo xam ne asaka war na ca te nangu caa génne asaka moom dañuy foqas ci asaka ja ci doole bu fekkee rey nañ ko ca mooy ñàkk ba kanam moom nag bu ci reyee kenn moom faaw ñu fayu ci moom rey ko wa man taraka ku bàyyi alxaaji aj fallaahu yàlla xas bu foo doy na ko koo xam ne gis nañ ne am na ci wér aku man ci saaxi ba mel ni mën naa aji waaye taxul nag mu aji dañ ko bàyyi yàlla rek ndax xëy na mu am ngànt ci biir loo xam ne moo yàlla ko xam ndax ngànt mën naa làqu wa man taraka ku bàyyi asalaatu julli jaxdan ngir weddi laxaa ñeel julli fa huwa moom kal murtad di mi ngi mel ni aji murtad yu setaa bu def na ko tuubloo talaasan ñetti fan fa inam yetum dem tuubul rek uti la rayeef ko ku weddi waru julli moom mu weddi waruk ramadaan ndaa leneen lu fés ci lislaam ñooye moom lu mu ci wedd rek te fekk mu di julli dañu jàpp ne kon moom murtat na daal koy tuubloo ci mu gëm loolee mu doon weddi bu nangoo tuub jur ñetti fan baax na ñetti fan yu matee te nanguwut a tuub ñu rey ko wa man sabba ku ŋàññ rasulullah yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qutila rayef ko wala tuqbalu te deful nangu tawbatu ho tuwam nga julit ñi ko ci xamne ngañ nga yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moy wax ci mom kenn wañiku faaw mu ni su ko ñàkk rey su fekkee nangu naa tuub du tee ñu rey ko reyu jiitam bu fekkee fëru nangoo tuub nag moom buñ ko dee rey reyu kéefër lañ koy rey wa man sabbahu koo xam ne ŋàññ na ko min ahli zimmati ci ñooñ kóllëre bi xëyrima ci ludul la nga xam ne kafara weddee na ko bi ci moom aw sàbb wala mu ngañ allah yàlla xasa tedd na ba jàllate mu màgg bi xëyrima ci ludul la nga xam ne kafara weddee na ko bigi ci moom xuti la kon reyeef ko illa an yuslima ndare bu dafa nangoo tuub ñi ñu fasal walëre muy ahlul kitaab benn muy yahut mbaa nasaraan ko ci xam ne ŋaañ na yonante bi te lam wax ci moom bokkut ak lam ko weddee tañ bàyyi ko ca ndax bu fekkee day nasaraan mu wax ne muhammad kat nun du sunu yonante isa mooy sunu yonante wala bu fekkee day yahud yahud ba ne nun muusa mooy sunu yonante waaye muhammad du sunu yonante loolu dégg nañ ñu koy wax te teewut ñu fasante ñu wëlëre loolu nag kon buñ ko waxee rek yem ca du tax ñu rey leen ca niki kenn ci ñoom bu waxal ne muhammad dal xamul dara wala muhammad dal ne ab yonante ba noppi nay ni mu naye wax yu mel noonu ku ko ci wax rek dañuy seet boo nangoo tuub dugg ci lislaam ñu bàyyi la waaye boo nangoo ta tuub dugg ci lislaam rek ñu rey la koo ci xam ne itam ci ñoom daa ŋàññi yàlla mel ne ab nasaraan bu ne allahu salisu salasa xam nga ab nasran bu ne yàlla ñett la te yàlla mag mi kenn la ca loolu xas na yàlla waaye dégg na muy wax loolu te teewut nu fasag mu wëlëre kon loolu tax ñu rey ko bu ko waxee ba tey bu ne xiisa doomi yàlla loola xas na yàlla ndax yàlla amul doom waaye nag dégg na mu daa wax loola te teewul nu fasag mu wëlëre loolu kon ba tey tax ñu rey ko batay ab yahud bu ne huzairu bunullah huzairu doomi yàlla dégg nañ ñu koy wax te teewutoon ñu fasa ñoom wala kon lu mel noonu buñ ko waxee dañu wax rek lañ daan wax te teewut ñu fasa ñoom wala loolu kon dañ leen cay bàyyi rek moom waaye nag buñ nàññee yàlla wax ci moom lu bokk te loola nag waaw kay su waaw kay su boobaa nag ñu rey leen ndegam nangoo ñoo tuub waaye nag buñ nangoo tuub dugg islam nag moom ñu bàyyi leen wa mirasul murtaddi donop aji murtad li jamaaxatul muslimina ñeel na mboolem julit ña koo xam daa murtad nangu wut deltu gannaaw ba ñetti fan ñamatee ñu rey ko kon ña ko war a doon ci ay mbokkam duñu ko doon dañ ñëw alalam bayti maal wala mu xaaribu aji ruggoo laa xafwa deetug jéggale fii fi muy nekk ci moom ida zufira ndem jàppeef na bii ci moom day firi day firi ida zufira ndem puufoof na waaye ndem jàppeef na rek bii ci moom mooy maanaam yi ajurugoo mooy koo xam ne day dog yoon yi di kar nit ñi di nangu seen alal wala muy fexe bay jàpp nit ñi foo xam ne buñ yuuxoo kenn kuy mën a xet du fa nekk bu ko defee bu fexee nangu alal yi kookee mu téye te mënta yuuxu xet li ko kenn xet li ko wala sax muy jox nit ñi luy màndal bu leen ko joxee buñ naanee màndi mu fab seen alal dem yooyu yépp xeet rugoo lañ ko jàppee koy wax adukal be ku mel ne kooku nag moom buñ ko jàppee jeex na faaw ñu teg ko la ca yoon wax fa in qatala ndem rey na ahadan kenn fala budda mënta ñàkk min qatlihi ci reyam bu fekkee jot na caaray bakkan faaw rek ñu rey ko ndax fayu ca bakkan boobee mu rayan wa in lam yaqtul ndéem reyut nag faye sax dana yaatal al imaamu ilimaan ba fii ci moom ijtihaadahoo ak farloom maanaam ab seetam rek bi qadri jurmihi ci kem toñam nga wa kasrati muqaamihi ak barik saxam nga fi fasaadihi ci yàqam nga bu fekkee ci biir addu kalpe gi mësu cee rey kenn kenn kon ilimaan ba mooy seet ba mu tàmbalee def loolu ak léegi kañ la ak nam yàggee ci lu bon loolu su ko defee àtt yi mu koy àtte nag benn ci mu lay bëgg a wax benn la ciy doon mooy fa imma qatalahoo benn mu rey ko aw salabahoo wala mu salab ko suma qatalahoo topp mu door ko rey aw yu qattihoo wala mu koy dagg min xilaafin ci juyeele aw yan fii wala mu koy dàq ilaa balit bi ci ab dëkk yus yéen boobu def na ko tëj bi xaaja moom xataa yettoo ba ba bu muy tuub ilimaan daal yii lay seet lu mu ko ci def baax na mooy benn mu jekki-jekki rey ko wala mu salab ko ba noppi door koo rey salab mooy yeew ko ci dàttu garab marale koog moom door wëlbatiku rey ko mën na ko dagg ci juyele mooy day dagg loxom day joor ba ca tikku jara ba dagg tànkul càmmoñ ba ca dojor ba loolu mooy dagg gi ci juyele wala boog mu dàqi ko ci dëkk bii yóbbu ko ci